asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a baaxu ànd ak ñun tey ñëwaat nañ ci beneen numéro fi nga xam moom mooy gan gi tey ñu ngi dalal koo xam ne nii muy nekk ci département Mbacké di responsable politique Khady Diop soxna Khady ginnaaw bu ñu la nuyoo bu élection yi jàllee boobu ba léegi kenn mënu laaj tey am nañ occasion bi sant ak yow nga nuyoo askan bi asalaamaaleykum waa 24 actu maa ngi leen di nuyu di leen ziar maam Thierno. maa ngi jël nuyoo bi ak ziar bi yëpp teg ko sa loxo di nuyu waa Touba gépp di ci jiital sëñ Muntaxal Bachir di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi gën a dëgëral taxawaayam mm, noonu laay nuyoo xalifa général Kulu Baye Fall di ñaanal suñu boroom guddal fanam Mbàkke xalifa Serigne Fall mi nga xam ne moom laa yaakaar di ñaan suñu borom guddal fanam wéral cëram ci barke Cheikhul Khadim ah di nuyu waa Touba yëpp di leen ziar euh, di wax ne Khadim moom mosul dem fen mi ngi biir Touba voilà. première xam naa tey ko mooy première safar ko dundee waaw kontaan mhm. ndax euh, bu ne tey la première safar euh, te ñun ku ñu xam-xam ni murit lañ ci lañ judd ci lañ màgg ci lañ yaru ah euh, comme ni ko murit yëpp di defee xëy nañ tàmbalee ko ci suñuy biiri kër ah euh, génn ba ci mbedd mi génn ba ca taliba ndax foog naa ndigal loolu sëñ bi joxe na kenn ku ci nekk tàmbalee fa nga dëkk ci biir kër yi ba ci biti bu ko kenn ku nekk defee sa kër foog naa dëkk bi day daal di set euh, di kontaan bu baax ci màggalu tuubaa gi ñu ju dëgmal ñu nekk ci premier safar gi ndax dëgg yàlla am ay murit leen mooy mbégte mi ëpp ci ñun événement bi ñuy ëpp mbégte mooy màggal Touba ndax ci la ñuy gis suñuy mbokk ci la ñuy gis suñuy xarit ni euh, niñ koy dundee daal macha allah ñu ngi ci wàccaay mën naa ni sax waajal lu ñu mënoon pare nañ ci màggal gi incha allah. jërëjëf loolu xam naa dañ ko moo di li xew ne xam na ni politique bi euh, dëkk bi yëngu na. Mm-hmm. après campagne yi campagne yi nañu ko doon dundee xale gis nañ ñaari activité ci biir campagne bi yoo xam ne amal nga ko benn déclaration boo xam ne xaw naa lëmbe tuuti moom tam lan moo war loolu loolu yëpp yëpp kon maam Thierno yow suivre ma man li ma campagne ci département bi li ma fi amal ci ay programme bëri nañu ñuy tudd yi nga xamante ne nii yu officiel la ñuy tudd xam naa ne daa nga dem di wër mbedd yi café yeeg yooyu mais yi nga xam déclaration yi nga xam ne nii jàll na partout dans le monde foofu la ñuy commencé waa yooyu noonu comme ni ngeen ko comme ni ngeen ko gisee noo après campagne dañu def suñu bilan campagne comme def nañ wàcc nañ ci terrain bi liggéey bi ñu liggéeyee ba pare ñu càmbar li nga xamante ni moom lañ doon def càmbar tamit aussi li nga xam ni moo ñu pertuloo xool tamit lan lañ war a mën a defaat pour amaat dëgër laay pour mën a gañewaat yeneen li nga xamante ni moo nekk suñu kanam ci noonu la ñu def ci biir campagne bi après campagne bi wax dëgg yàlla am ñu ngi woon ci terrain bi ànd kook suñuy nit ànd kook suñuy responsable mënuma lim tour mais xam da nga ne li ñu perte loolu lan mooy jafe-jafe Touba di département Mbacké rawatina Touba ban problème mu ngeen am ba mun leen ko gañe saa su leen dikkee rek dañ leen waaw euh, maam Thierno wax naa ko dinaa ko waxaat wax naa ko wax naa ko ci ay émissions yu bëri que ni Touba moom euh, jot na président xoolaat ko. jot na président gën ko waat bàyyiwaat xel ci côté politique euh, ci responsable politique ndax nag wax dëgg yàllam la ma ko waxan départ ba ma ne ko président du ciy saal lañ lay fale euh, du ciy kilim lañ lay fale loolu dama koy répété waat muy man di keneen ak kum mën a doon ci sama bopp laa koy tàmbalee mënuñu nekk suñu ruq rek ni président Macky Sall da am ndam Touba déedéet da ngay wàcc ci terrain bi jàkkaarloog nit ñi jàkkaarlook ñi nga xamante ni ñooy dem voté ji ngir que ñu mën a génn votel président Macky Sall te càmbar boobu la ñu am euh, foog naa ni nag. jël nañ ci leçon bu mag te gëm naa ni danañ ko danañ ko danañ ci danañ ci danañ ci gën a gën a xuus daal ba ba ba perte bi ñu daan perte biir Touba vraiment gëm naa ni dootul am incha allah. Euh, suwaay yi est-ce que problème suwaay yi dañ leen jox ay dañ leen wax ci biir saal ay dañu ma ko mën a wax ay borom sant Touba est-ce que le problème am jotul Macky Sall jël engagement yéen mu jëm nee na seet yéen jigéen ñi ba gisoo loolu yow. waaw Euh, d'accord naa mu set jigéen ñi ndax nag euh, li may wax toujours su ma waxee ñu ni dama féministe ba mu ëpp euh, mais dama gëm ni jigéen li mu mën a doxal bëri na ñoo koy dénkee góor muy muy suuxee bu doon jigéen du am exemple rek laay jël ci Mimi ñu ngi koy nuyu ku nekk gis na li mu def ci campagne bi ku nekk gis na li mu daj te mi jigéen kooku rek dafa doy exemple loolu képp kuy jigéen da ci da ci war a am kontante am ci xol bu sedd ndax lan sa moroomu jigéen la ñu jiital ndax tollootuñ jamono boo xam ni li ñuy wax naan femme yàq femme tollootuñ jamono boobu mm. instant bii fi ñu toll mooy femme yépp booloo nekk benn mm. ngir seen doole mën a jóg euh, dëgg la ñu ñuy jox suñu àq ak suñu yelef mais des na comme ni ko président Macky Sall defee mooy président bi ko njëkk a def ci Sénégal jiital jigéen ci campagne loolu moom dañ ko ci sant di ko ci gërëm di ko wax ni président defal nga ñu loo xamante ni yàgg nañ ko bëgg ubbil nañu tam aussi bunt bi kani jigéen mun na doon lu nekk fii ci Touba. ci ci ci Sénégal bokk laa bëgg a wax mun na nekk lu nekk ci Sénégal kon président Macky Sall man li ma koy wax mooy na gëstuwaat jigéen yi tuubaa na gestuwaat jigéeni Touba ndax ay jàmbaari fàkk tëdd ñu ngi fi euh, lii nga xam ne moom lañ dëgmal muy muy muy taxawal gouvernement bu bees ñu ko ci sàkku di ko ci tàllal loxo ngir mu bàyyil ñu xel biir Touba ndax nag ñu ko man matale ko ñu ngi fi ci comme jigéen waa ministère yeeg DG yeeg ñoom seen bépp poste bu muy joxe ci yeneen dëkk yi Touba yelloo na ko ndax nag ñu fi xam-xam bi mate mi ngi fi damay citer rek comme jigéen nga tudd ku ci mel ni Ami Mbacké macha allah yar bi mi ngi fi taalibe gi mi ngi fi donte ni Mbàkke la sant mais lépp loo xam ne dangay gis as gor sopp ko mi ngi ci Ami Mbàkke Daaj man li ma gën a attiré ci moom mooy oyof na foo ko woowee mu wuyu la foo waxee ak moom mu tontu la loolu dafay dafay dafay gën a yombal liggéeyu président kon tey jii suñu jëlalee post bu am solo jox ko ko gëm naa ne li mu daan ñàkk biir tubaab du ko fi ñàkk ndax bu heure boo ko soxlaa da nga ko gis bu xew amee ni ma ko waxee président ki mu war a jiital su dëj amee kooku dafa war a teew su ngént amee dafa war a teew su céet amee dafa war a teew bu nit feebaree dañ ko war a gis. góor ñi nag ma danga ma laaj jigéen mais man euh, yàlla dafa ma bindee. yàlla dafa ma bindee du ma wax ci lu ma xamut. Mm-hmm. man noonu la ma yàlla bindee de naturel. du ma wax ci lu ma xamul ñi ma gis nga xamante ni man euh, ku leen soxla du man kese de ndax duma waxee sama côté man kese mais ku leen soxla gis leen. ku leen woo jot leen ku leen bëgg a gis gis leen sincèrement sincèrement gis naa ko ci Ami Mbacke Daas bu dee ci ñeneen ñi ci côté jiital ci Touba man dama koy wax dama koy répété waat. Mhm. xam nga kan laa ci gis woolu ko ci xam nga kan la. Cheikh Bara Gueye ndax xam la moo tax ma woolu ko ci. yorul jikkoy politique politicien lan mooy jikkoy politique politicien. jikkoy politique politicien bañ nan ba nit ñi sax buñ lay xas dañ laan la sa jikko politicien yi ndax ci ñenn ñi yàq turu politique ba euh, luñ la wax duñ ko def. mais luñ la wax duñ ko def mhm. benn duñu wax dëgg mhm. dañuy sosalaate loolu mooy jikkoy politique politicien te gisuñu ko ci moom ba pare tamit. déglu euh, bi bi bi déclaration bi jàllee tête ko mu wax fi ay wax ne nañ bi ñu ko tuddee ne kooku am am nen li nga war loolu dama ne woon dootuma ci wax. vraiment euh, dama ne woon dootuma ci wax ndax xam la moo tax dootuma ci wax. Uh-huh. man xam naa ni sëñ Galas joxuma benn dërëm. Uh-huh. moom sëñ Galas xam na ni. xadi joom toog jox ko benn dërëm. wallaahi lazim wallaahi lanzim te bu ma tegoon kaamin mun naa ci dóor sama loxo. Hmm. donte dañ lay rey waxal dëgg xulaw xàq wala kaana mu ran dont dañ lay rey waxal dëgg ñun lépp lu ñuy wax du dañu jomb man man man man personne man dama jomb jàkkaarloog nit wax ko mu leer ma ni man lii ma ko waxal moom xam na ni. du amut waaw peut-être mën na nekk beneen xaddi mën na nekk beneen xaddi la mën na nekk beneen xaddi mais xaddi jóob mii xaddi jatu jóob mii bokk ak bàyyi mu sant di jigéenu bàyyam booy wax dëgg yàlla amul kenn ku yëkkati benn mooy ci moom mii tëddali si bi mu ñëw ci man pour mu lee euh, bulletin yi may nuyu honorable député saa Sadaga ma koy ziar bu baax bi may def sama grand caravane bulletin yi ma doon jox nit ñi sax bi ma ko bëggee ci moom dafa jafe ci man ba dama mujjee woo honorable Larsec mi ngi may dégg ma ne ko dama damay paree def benn caravane deme bëggoon ay ay ay bulletin mu ne ma mu ne ma euh, euh, jëlal numéro bi envoyé ma ko SMS moor la woo ko yaa ngi dégg ma woo Mor mu ni ko jox ko ñaari bloc moor moo ma dugalal ñaari bloc après Cheikh Bara moo ma joxaat li ma eggale sama campagne euh, ci bulletin yi. mais kon daal bu ñu la déggee moom mooy tête de liste bi li mu wax nii moom moom moom la engagé waaye amul benn dërëm boo xam ne tegul na waaw man man moom loolu moom mën naa sama loxo wax ko sama loxo ndijoor mën naa ko yëkkati waat ko ni sëñ Galas yëkkatiwul dërëm ci campagne bi ni ma am xadi demal nga campagne ji dama ni la bulletin yi nga xam ne dañ ko indi pour wan ko waa Touba pour ñu xam ni kii la ñuy voté rek man bi ma ko bëggee dama dafa ma jafe. daf ma jafe. Cheikh Bara Gueye moom kon nit ñi ndax Cheikh Bara du daa am waa département bi lim ko jariñ euh, dëkkul tuubaa te kenn ku nekk gis na li mu am biir Touba donte ni ci Touba la bokk mais kenn ku ne gis na li mu am biir Touba. bu dee yar da nga koy fekk ci moom bu dee respecté doomu aadama da nga koy fekk ci moom bu dee kuy sàmm kàddoom da nga koy fekk ci moom te loolu la ñuy nit non xaalis man du ma man man du ma toppe nit xaalis Cheikh Bara moom xam na ne Khady Diop toppewu ko xaalis te ku dul moom sax duma ko toppe xaalis man sama bopp laa gëm dama naqari deret moo tax kenn du ma yab man Khady Diop dama naqari deret moo tax kenn du ma yab du ni amul kenn ku mën a taxaw ni daf ma wax lii ci xaalis wala daf ma def li ci xaalis man li may bëgg mooy nañu ànd dem liggéey campagne bi bi mu ñëwee sama programme bi ma doon def ni ma incha allahu bi ñu war a yëg dinañ yëg ba di nga campagne lam wax ni bu dul tey wala suba di nga campagne foog naa lundi laa ko def mardi mercredi la la la wàcc ci terrain bi li ma war a campagne kenn ku ne gis na ko li ma def ci campagne bi ëpp na 8 millions. Mm. man li may joxe café bu ma dem sama café bi gën a ndaw ci sama kafe cent mille francs laa fay joxe 100000 150000 200000 250000 leer na ab euh, Ablaye Samb bi ma doon àndal ci campagne bi. jour bi ma njëkkee tudd cent 250000 daf ne ma xaddi bi nga waxee dama foog ni da nga juum ma ne ko déedéet xam nga li yées mooy woo ay nit. ñu dajaloo woo seeni nawle ñu dajaloo ñu tàngal seeni lu luyee seeni chaise ñëw toog indi seeni ndox man jigéen laa kon xam naa li jigéen di dund. comme xam nga euh, loolu duma wax. Ah, ah, non non loolu duma wax en tout cas daal. en tout cas en tout cas dinaa ko sant. en tout cas man li ma def ci campagne bi ëpp na 8 millions. mais loolu fu mu jógee dama ne ah. en tout cas dinaa ko sant sant tamit président Macky Sall. mosal man man man man xam nga buñ la mosalee xam nga lan mooy mosal. waaw ba tey. Ah, mais mais dama ni président bu euh, fekkee dañ ma doon mosal ci suuf. ni ma doxalee du ma ni dox. dajale samay nit ci benn place génn benn montant wu un million joxe ko pare ca. ah man xaw ma. Ah, ah, man gis gis naa. su mu fekkante ni wan noonu laay doxalee noonu laay def mais chaque jour dinaa dem lu mat ñetti kafe wala ñeenti kafe par jour. bokkul ak samay caravane chaque jour suba bi dinaa def samay visite de proximité équipe bi ma daan àndal ak li ma daan oto li ma daan fay ci oto ak li ma daan jënd ci carburant lépp ma doon yëkkati chaque jour li may dépensé ëpp na euh, un million nangam chaque jour nag loolu moom dama koy sant Cheikh Bara ndax nag Euh, jàppale président Macky Sall mooy que ni foo gis ku mën a lijjanti dara wala mën a def dara nga xëcc ko wan ko ni ko président lii la politique noonu la politique du sii santé ndax tey mënoo siis nit ki ba mu jël sa place man mbokk li ma jàpp kenn ku ci nekk am na foo ma ne euh, Amy Mbacké Daje su ma taxawoon di gérante ak moom du ma sonal sam bopp diplôme yi mu am ndax am naa ko ah diplôme yi mu am aw ma ko bañ ma dugalee ba ma jàngee ba ma bàyyee maa dem ñu dugal ma alxuraan ma jàng alxuraan ba ma bàyyee alxuraan damaa dem liggéey ndax man moom damaa yàgg a gëm ñafeel sam bopp duma ma ñaan kenn. ba ma bàyyi merci beaucoup ba ma bàyyee alxuraan laa dem euh, nekk sama métier métier ba ma nekk lu ma am tey moom ma ko moo ma ko may commerce ba lépp lu may def waa Touba xam nañ kan mooy xadi ci ñaw. ku nekk xam na xadi nan la doon def bi muy ñaw ñaata nit laa formé fii biir Touba ñu ngi yor seeni place yor seeni place Dakar barke Cheikhul Khadim kon loolu dama ciy sant yàlla du ko ndamoo mais dama koy sant yàlla damay wane rek ni bu ñu sii sante ndax kenn ku ne la nga war a am sa moroom mënula ko xañ maanaam nëbbante bi moo mën a ñàkk nit da ngay ñàkk ki te Cheikh Bara loolu moo nekk ci moom. Ah, xam wax ji dafa mel na fu mu jëm jëmul fenn. jëmale damay leeral mais jëmale mu ko fenn damay leeral ndax dañ ko fi gis. da ngay gis kii man dara ñu ni déedéet su feeñee nangam wala déedéet su defee nangam nangam euh, sëñ Galas gaa li ma koy li ma euh, sànniw ma ko xeer waxuma ko def ma ko mais bari na ñu ñu dégg ay rumeur ñu ni dafa am ñu doon ko xeex kani du am ndam mais loolu ku ko def dof mënul weesu loolu ndax wutaluñu sëñ Galas ndam président Macky Sall la ñu utal ndam. man campagne bi yëkkatiwul juróomi dërëmam jox ma soo xoolee samay vidéo fu ma dem dama ko fay tudd. c'est parce que bu dul dara sama sëriñ la ndax sëñ Fallou laa gëm lu takk ci sëñ Fallou dama koo bëgg. voilà euh, mais mbiru politique la mais dama dama la jox exemple kani dama la jox exemple rek kani durant campagne bi bi ñuy dem. teewul fu ma yëkkatee sama kàddu dinaa tudd trop ndax lan moom la président jiital ndax lan moom la ñu bëgg mu am ndam donte ni président day am ndam mais moom tamit moom lañ bëgg mu am ndam kon ku koy xeex ngir moom mu bañ a am ndam président ngay xeex mu bañ a am ndam ci man d'accordu ma loolu. bëgg dem bu gis nañ benn vidéo bu commencé di circuler ci internet bi mooy euh, la lion de de Bawal. Ajaratu Aïda Mbodj ñu ngi koy mm, ko. dégg am na tur xam ngi naan Khady la lion pourquoi junior bi nag yow tamit. gaa yi ñoo ko wax de. dégguma kenn ku ni junior kon yow yaa bëgg a indi sa turu bopp. Oh. ka junior man. non ay dëgg la. mais nangu na eh, eh, eh, d'accord naa mais mais fa mu tegoon tànkam ba egg fa mu egg. Mm-hmm. fa laa teg sama tànk te gëm naa damay egg fa mu egg. li mu li mu doon tey ji ci réew mi. gaynde gi mu dool ba foo dégg ñu ni la lion di bawal gëm naa ni titre boobu day tege sama loxo. ndax ndax yoon bi mu jaaroon pour def ko dama jaar ci yoon boobu. est man man pànk ma mais lu ma sama bët may sama xel jox ma ko sama fit jëlee na ko kooku moom Diop laa sant lu ma sama fit may sama bët gis euh, may sama xel jox ma ko Serigne Bamba xam na ni dama koy jëlee. man ragaluma. mu mel dëkk bi bëri na ndox assainissement bi ngeen tëlee yéen yéen xam ne yéen bokk ci eh, waa waa kër yi ay dem boo yëkkati na ay kàddu am lu mu leen wax nee na Macky Sall bëggul waa Touba. ndeysaan. bi ak ñaan ñaan mu jàll yu bëree bëri temps temps temps foofu dama ko naan dafa juum. Mm-hmm. ndax euh, dëgg la ma nga ci ensemble ba di siéger. loi bu jàll bu ko neexee voté bu ko neexee du voté gis naa nag loi yu bëri damay gis muy voté mais bu mu voté ba tax mu ni yi daan ñëw fii Touba dañu ko dañu dañu ko dañu ko détourné dañu ko teggi yóbbu ko feneen ngir président Macky Sall dafa bañ waa Touba président Macky Sall su bañoon waa Touba li mu def Touba du ko fi def. président Macky Sall li mu def biir Touba kenn def ko ci. muy nuyu président Abdoulaye Wade suñu maam ji di ñaanal suñu borom guddalu fanam te wéral ko mais li Macky Sall def Touba Abdoulaye def ko Touba. barki Cheikhul Khadim. Sall xam nga lan mooy fët bi mooy. Euh, man ni ma ko jàngatee man sama xelu bopp bu gàtt. Mm-hmm. mooy kane Euh, comme ni Ablaye Wade amoon ay lieutenant ba Ablaye Wade su yëkkatee bant teg ko sax Sénégal euh, waa Touba yëpp xam ne Ablaye Wade yëkkate bant teg ko dama foog ni loolu la xaw a manqué ci côté mais li mu am bilan fii Touba ak Sénégal barke Cheikhul Khadim dina néew président def ko fi ndax nag dafa am loo xam ne xol moo koy def. dafa am loo xam xamante ni bëgg moo koy def dafa am loo xamante ni taalibe moo koy def. bi mu ñëwee Assane. non no no non non non no ah, da non non danga naan dañu ko baare ak ay jaru xeer non dañu fa sotti jaru xeer sama oto mënul si nañ waxante rek li fi nekk il faut di la vérité déglu déglu ma waa déglu ma waa déglul nga ma poser question déglul ma tontu la question bi nga ma jox déglu ma tontu la président Macky bi muy toog président 2012 daf fi fekk boru assendissement 8 milliards mu fay huit milliards yi dugalaat huit milliards yow euh, diggante ñaari étage ak jumaay Cheikhul Khadim oto nu fi jaar su fi mën a jaar bu nawet jotee dégg naa ay jamono Serigne Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu oto mus na mus na mus na mus na fay foofu ndax ndox ci Ablaye Wade dé noonu déglu ma déglu ma Ablaye non non non non danga may déglu rek li gënoon sonal waa Touba li gënoon sonal Touba ci mbënd nga xam ni fu nawet jotee mbedd boobu moom mënoo xalaat sax yow nga ni danga fay jaar président Macky Sall ñëw du du ñaari étage kese bi jëm Gédé wet wetu kër sëñ Bass Abdou Khadir déedéet bu dafay taa mais taa mënul ñàkk mais su taawee du mat 20 minutes ca ndox ba demul ndox ba mbedd yooyu noonu mbedd yooyu ngay wax su nawet musaana jot deux mois après nawet doo fa jaar. dëkk bi jaxasoo dañuy santaat yàlla. Ah. ndax li ñuy sante yàlla mooy màggal gi dafa dugg si ci nawet te gëm naa ni fii ak 10 màggal gi day gën a dugg ci biir nawet. àddina mooy tëddee noonu mais teewul président Macky Sall lépp lu ko war ci assainissement mi ngi koy def gis nañ bër bërki démb euh, ministre de l' Euh, Antoine ñu koy nuyu ñëw na fi pour euh, yëkkatiwaat euh, plan Orsec. yaa ngi dégg pour non non déglu ma non laajul laajul laajul. waaw non déedéet. bassin yoon daaru bi mu ñëwoon ba dafay ñëw tey avant mooy àgg nguur ga muy fanaan miir ba daanu yàq tool yi ndokk ya salaat ñi ngi naan sax day am problème ci màggal yi loolu d' naa ko loolu ndogalu suñu boroom la xam nga miir bu daanu moom loolu du fëtu état. Mm-hmm. miir bu non ndox bu daanu évacuer nañ ko da fii la daan jóge Kër Ñang ñu évacuer ko mu dem mu dem foofu noonu ca li ñu fa def noonu déglu ma da di nangu ne nawetu ren li fi sotti ci ndox gëj na am nawet di ko sotti gëj na <laughs> non liggéeyew ma météo waaye yow tamit xam nga ni xam nga xam nga li fi sotti ci ndox xam nga li fi sotti ci ndox gënuma la maîtriser dëkk bi gënuma la maîtriser Sénégal li fi sotti ci ndox amul kenn koo xamante ni si mën nga wax a wax a wax ba taataa ndox du am Dubaay moo ñu gën a développé fuuf yaa ngi nii da ngay dem da ngay rêvé dugg biir Dubaay dem def say tourisme noppaleeku keneen noonu keneen noonu te mi ngi noonu keroog bi ndox mi di sotteeku dakaar gii bëri fa Dubaay dafa dem ba seen da da nga leen di gis di leen yërëm. day dem ba seen magasin yi day tolloog moom ñëw di daaneel seen vitre loolu mbiri suñu borom la nañ ko nangu. loolu du mbiru état yàlla su jëfee ana dogalu yàlla lan moo tax ñun munuñu gëm ni yàlla dafa yore dogalam di ko dogal yàlla dafa yor lu ñu war a teg ñun jaami yàlla yi di ñu ko teg ñun ñuy nangu mais président Macky Sall li mu def biir Touba ci assainissement bi wallaay lanzim dina néew président ñëw fi def ko ndax xol mooy def te président xol bi mu am biir Touba dina néew président am am xol boobu kon ajaratu ay dembooj dama koy wax ni ko fi li président Macky Sall def biir Touba du moom mooy ñëw di proposer kii que ce soit naa leen président Macky Sall daf leen a bañ moo tax ngeen bañ ko fii benn Touba euh, ñaata la fi am bëri na département yu muy gagné li mu am biir Touba amu ko fi. kon président Macky may ñu may ñu kenn mu jóge ci àll ba duggati ci biir Touba di wax président Macky Sall nii la wala naa la duñu ko nangu la ci kenn. yaa ngi su amee message yu muy joxe wala lu muy wax na dem baa mbay mu waxi ji ko fa mais pas biir Touba may wax mu dem ba daaru mar naan la xaw ma naan président Macky Sall day dem président Macky bu président Macky Sall di dem du moom moo koy décider. bu du moom moo koy désidé wala moom du soli dàllam buy ñëw ci président Macky Sall moom Aïda Mbodj buy ñëw ci président Macky Sall du soli dàllam moom. gis nga président Macky Sall yàllaa ko samp yàllaa ko fi teg te moo ngi fi nag. Hmm? waaw <laughs> moo ngi fi. kon moom na arrêté yooyu muy wax waa Touba amul ku fi bañ président Macky Sall troisième mandat ka dana am ak du am man troisième mandat gaw ma ko gaw ma troisième mandat déglu ma wax lay tax gaw ma troisième mandat déglu wax lay tax gaw ma troisième mandat président Macky Sall mi ngi ci première mandat wu cinq ans waxat amut déglu ma sept ans la def bi ma jógee ci sept ans ñëw ci noo théorie wu ma leen dama leen wax rek li nga xam ne moom moo nekk mi ngi ci première mandat wu cinq ans yaa ngi dégg dese na ko beneen mandat wu cinq ans wa ka ka moom day présenté wu ka du présenté wu kooku moom la wala wala wala wala euh, constitution bi moo koy wax moom sax décidé wu ko ndax bu ko doon décidé ba mu décidé ni sept ans yi mu ni cinq ans laa koy def bu doon moom mooy décidé kon cinq ans lay doon du nekk sept ans nit ku yéwén mhm. ku respecté démocratie mhm. ku respecté kàddoom moo tax ba mu toogee def ni dama koy wàññi def ko cinq ans ñu ni ko amoo droit wàññi ko sept ngay toog soo toogee sept ba pare léegi na nga dugg ci mandat wu cinq ans dix euh, euh, ñaari mandat wu cinq muy dix ans soo toogee première mandat muy sa premier mandat wu cinq ans bu la sénégalais yi wóoluwaatee joxaat la fali laa du xamdu ci dama gëm ni sénégalais dañu wóolu président Macky Sall ndax nag non ak sénégalais yu mel ni man ñoo xamante ni non bëri na ci ñu ma mën a wax seen kàddu ndax xam la moo tax que amuñu mën ah, waaye yow tamit nag tamit nag tamit nag wax dëgg yàlla am nag nag nag maam Thierno yow tamit nag. ah maam Thierno yow tamit maam Thierno xoolal maam Thierno maam Thierno noo non sama engagement ak engagement yenn ci sénégalais yi xam nga li mi gën ta xam loolu sénégalais yi donte ni moo ñu gën a jàng mais gën ta xam loolu sénégalais yi kani dañu wax ni cinquant ans dix ans la ñuy toog premier mandat wu cinq ak deuxième mandat wu cinq ans bu la sénégalais yi wóoluwaatee joxaat la alhamdulilah bu la wóoluwul joxaat la benn mandat nga fi toog mais ñaari mandat wu cinq ans la ñu may nit ki mu toog ko moom xam na li yoon tëral xam na li yoon wax dañ ne nag ku sa wujj di sëlëm doo set kon bu fekkante ne woon du dëgg wala mënta am Barthélemy du ko wax nañu waxante dëgg xool nañu bàyyi xale sénégalais yi ñuy jaxase nañu bàyyi sénégalais yi ñuy manipuler di leen gëmloo surtout waa Touba naa leen président Macky Sall mënta présenté waat munta def nangam nañu respecté démocratie ñoom ñiy wër di wax ñoom bu ñu toogee seeni ruq ñoo gën a xam ni président Macky Sall premier mandat wu cinq ans la nekk. kon waa Touba nañu xam loolu du ñu nangooti nag kenn di fi jógee di ñëw di ñu diaboliser naan président Macky warul am li wala président Macky Sall bu warul def naa nga xoolal nab bi nab bi nab bi wër bi wër jumaa ji fii ngay wax nii nab bi la. nab bi la nab bi ñaata la ñaata la décaissé pour euh, euh, euh, pour pour pour pour saafara ko bu ko neexoon toog de xaar di dugal ay projet nangam ak nangam 29 milliards la génne teg ci taabul pour def ko xoola marché Ocass marché Ocass lu jafe. lu jafe laa lay wax lu fi musul am marché Ocass musoo xalaat ni danañ ko musa pavé mu yëkkanti budget un milliard pour pavé lu jëm ci marché Ocass bu nu fa doxatee bu nu gisee suuf dañoo neex. mais mais mais mais mais moom na le moom na ko. léegi ñi fi jaar lan moo tax ñoom defuñu ko woon force pour jox ko askan wi. dama ne xoolal. waaw dama lay laaj non bul ni sànni. deuxième corniche bu Touba. ay ay waay deuxième corniche bu Touba. lii bañ ko tàmbalee ba léegi foo jaar dara bu ma nga yàqu bay bëgg ay kenn defar bi kenn ñaata ay waay ay waay ay waay ay waay. te ngaa waxal yàlla rek te yàlla tax président Macky Sall li mu fiy def ci ay ta non li ñuy teg ci taabul bi ku la ku xool da nga gis ku làmb da nga taj. ku jóg yora euh, Touba boo daan jóg benn tali nga daan jaar pour dugg si biir marché Ocass léegi fu la neex boo jaaree fii xat. da ngay dëppaat nga jaaraat beneen tali. loolu grace à président Macky Sall donte ni moom la war bu ko neexoon du ko def yeneen président dañ fi jaar ca defuñu ko hmm. waaw. su ko neexoon du ko def mais bëgg gu mu bëgg Touba ak bëgg gu mu bëgg sëñ mu Mountakha sëñ mu taxaa ñu koy nuyu di ko ñaanal Mbàkke balay sa buri sëriñ Mbàkke ak maaram mi jàkkaarloog président Macky Sall ni heure bu ma ko gisee sama cofeel day gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a bees ci moom kon kooku ñun ñun murit yi kooku lañu war a war a war a war a jàkkaarloo kooku lañu war a waxal ndax ñun ay taalibe waaw ñun murit yi ñun murit yi képp kuy murit di jëfee ndigal di bàyyi di bàyyi tere képp kuy murit la sab sëriñ bëgg ca ngay nekk la sëriñ bëgg mooy sëriñ bi li mu bëgg mooy kii fi nekk di liggéey non damay sori déglu ma li kii fi nekk di liggéey di liggéeyal sëriñ Touba yaa ngi may déglu di liggéeyal sëriñ Touba kooku la bëgg moom la xam la sëñ Fallou waxoon Senghor rek ñu ni Senghor du jullit du jullit du jullit lu tax muy jël falub jullit falub euh, euh, chrétien di bàyyi ab jullit mu ni xaw ma chrétien xaw ma jullit ku xam li yoon wi laa laa waxal ki xam yoon wi muy président Macky sàll di dundee yoon wi di dundal yoon wi kooku lañ waxal mais waxuñu koo xam te ne ma nga ca àll ba di toog di sànni ay xeeram chaque jour mu jàkkaarloog Sénégalais yi ne seen xel yi di leen manipuler. dugal leen ci loo xamante ni mus ta nekk ci xar kanamu Sénégal kenn musul am fit boobu kon ñun kooku ñun duñ wax ak moom ki ñu bëgg jàkkaarloog moom muy président Macky Sall. te wallaay la hanzim su laajee ni. su Sonko nu ngeen seen procès yéen Sonko. Euh, loolu dinaa ci ñëw mais dama ni président Macky Sall. su ko yoon mayee su ko yoon waxee ni ko dangay ngay présenté wu yaa xam nga dem Benno Bokk Yaakaar moom dina am candidat ku président Macky Sall teg bu dee moom mooy ñëw. Ah, ñoo nga ca yoon ba man daal xaw ma mais bu président mooy ñëw ñun ñoo nga ca yoon ba pare nañ ndax ba ñu jógee ca campagne ba bañ fa jógee euh, lundi mardi mercredi la ñu tegewaat ci terrain bi. lijjantiwaat am naa ci yaakaar <laughs> ndax li tax ma am ci yaakaar li ma wax président Macky Sall rek nay changement. yu dëgër ci côté politique am biir Touba ci naka na fi dugal ay ministre ak i DG na doole ñi nga xamante ni dañuy dundal parti bi ci dundee dundeewuñu parti bi ca bàyyi ñi nga xam ni dañuy jóge fële ñëw wax ne la Touba nii Touba naa ca dara taxewu ci wala laala ci ngir bëgg a lekk xaalisu président Macky Sall ndax bëri na ñoo xamante ni suñu suñu meree président Macky Sall campagne jot li ñuy dugal ci dëkk bi ñu di ko dégg ca duñ ko gis loolu moo leen di metti loolu moo tax ñoom ñuy sanctionné président Macky Sall ca loolu loolu nag gëm naa ni président Macky Sall su jëlul ay leçon ci élection yi dootu ko jëlati benn yoon te li ko dal élection yi dootu ko dalati donte nag perte na fi waaye lim fi amit dañ ciy sant yàlla ndax bokk na ci li ko may majorité kon dañ ciy sant yàlla mais bëgg nañ lu ko ëpp maanaam ñu gagné biir Touba balaa président président Macky Sall jeexal fii Sénégal. Ousmane Sonko man awma lu may wax ci moom. non ba tey man man man ngeen ko tuddee ragal mais man dafa am loo xamante ni euh, man dama ko yërëm. Ah. dama ko yërëm. ndax man damay nit koo xam ni ku ma tuumaal Olof Njaay daf ni weddi tuuma du ragal setal sa der la Adji Sarr daf ko tuumaal devant tout le monde. ku mel ni Ousmane Sonko nga xam ni foo ko gis mu ngi ci presse bi mu ngi wax euh, euh, euh, kii li bi nu mu tudd kim fi ji ñoon xaw ma of nag bi ba mu taxawee wax dañu ko loo am ci man ci comme preuve génneel lan moo tee mu wax ko ci Adji Sarr lan moo tee mu jàkkaarloog Adji Sarr ni ko nañ dem fa mbaxana doone benn nga setal ma wala nga taqal ma bépp preuve boo am ci man génneel nga teg ci table mu mu mu yeewi bokk xam nga dañu day yeewi mu yeewi ñi ànd ak ñoom ñi ànd ak Ousmane Sonko mu yewwi leen ngir seen bopp bi mën a tranquille que ni moom moo def wala deful man def naa deful duma ko du ma ci sujet kenn ndax nag su ma deewee man dong ak sama bàmmeel kenn du ma ci fekk moom moo violé violé wul loolu man leer ma fa leere mooy fa mbaxana doole benn na dem setali boppam yewwi sénégalais bu fekkee Ousmane sonkoo def li yoon santaane ñu def ko ci ñu teg ko ci kawam ndax sénégalais yi comme ñépp te Adji saar te sénégalais la comme ñëpp rawatina muy jigéen rawatina ëllëg mu war a nekk yaay su fekkee Adji saar moo ko tuumaal ñu teg ko li war li war ci ku tuumaal nit teg ko ci kawam c'est parce que as gor kenn du ko tuumaal lu mu deful man dama d'accord loolu kon Ousmane Sonko man dama ko yërëm gis nga guddi yi mu nekk dafa war a setal boppam mën a nekk nit fu mu bëgg a dem ci àddina bi dem fi ndax am na ay soxlaam yu mu war a doxi ci mënu koo doxi mun a génn Sénégal loolu dafa metti na yeewi boppam balaa mu yeewi sénégalais na yeewi boppam ak ñi mu àndal. loolu rek laa amoon lu may wax ci moom. lan ngay xaar ci député ñi waaw ñi nga xam ne ñoo fi jógee cinq députés yi liñ leen di wax daal lu njëkk mooy nañu bàyyi xel Touba. nañu bàyyi xel ka ni dëkk bu sell lañ jóge nañu bàyyi xel ni assemblée ga ñu nekk ñoom ñoo fa toogal Touba ñoom ñoo yore drapeau Touba nañu mel la ñuy sujet waa Touba kon yar war na fa dem teggin war na fa dem respect war na fa dem moytu yenn wax yi di xool la ñuy wax man loolu laa leen di conseiller lépp lu war a am Touba moom kan yi nekkul ni ñoom ñooy dem di wax ni nañ def lii wala nañ def laa président Macky Sall xam na ko ba pare moo leen ca jiitu ca teg na ay plan woom ca Touba mooy deuxième ville du Sénégal te lépp lu am Dakar dana am biir Touba. gëm naa ne bala moo wàcc Sénégal gii dana ko def biir Touba kon man loolu rek laa leen di conseil maanaam yar bi ak respect bi ak xam ni Touba la ñu jóge loolu rek laa am lu ma leen ci wax. jërëjëf la lion la la lion di bawal pas Signor lion di bawal. ay ay dëmbooj la lion di bawal la d' accord naa wax naa la ko sànq d' accord naa mais moom aase na. Hmm. day wàcc may ñu ñu yéeg dañuy aal 16 bi. dañuy aal 16 bi ci département bi ci bawal gii ñu nekk la yoon di bawal la ñu nii mooy Khady Diop. voilà kon jërëjëf maam Thierno kontaan naa vraiment macha allah di nuyu euh, internetu euh, vingt 24 euh, actu yëpp amaan mbégte jàkkaarloo ak yow kàddu yi macha allah lépp lu ci jub ndimbalu suñu borom la lu ci dëng nag da ngeen xam ni doomu aadama rek laa mais bëggoon naa lépp jub leer dugg ci seeni bopp ba ngeen mën koo jariñoo jërë ngeen jëf.